ngir yombalal leen ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bii di Sénégal Actu ngeen mën ko télécharger si Google Play wala Play Store rek xibaar dootu rawati di nga bokk si ñu koy njëkk a am mën a bouger ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam daal bàyyiwul dara application bii télécharger ginnaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak confiance bi di ànd ak seen chaîne Sénégal Actu TV. tey nag dossier bu ñu leen fas yéene tegal sur la table mooy loo xam ni la ñu ngi koy seetaan te bu suñu autorité yi jógul luy raam si ñàkk la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jóge ginnaaw ba nga xamante ni weesu nañ xew-xew yi fi amoon semaines yi ñu génn mooy lan dossier yi nga xamante ni moo concerné woon xale mineurs yooyu nga xamante ni ñoom lañ jàppoon fële ca résidence Zeyna ak tamit si cité kër góor gi mu niwel fi coow lu bari laataa ñoo noppi sax dossier rangu tamit ñëw ak ay nitam mu nekk loo xam ne nag bu ñu si jugulee société sénégalaise lay daal di yàq te loolu nag suñu njiit yi lu ñu si war a jógee mooy aller vers la source ngir rek mën a lijjanti lu ñu mel ñun nag Sénégal Actu TV mënee nañu benn enquête bu ndaw jéem nag xool mbir yi fu mu dooree mooy lan prostitution déguisée bii ñuy wax moom nag lañ leen bëgg indil tey tegal leen dossier bi sur la table. Nourou Massage neex loxo massage plus safle massage massage body body di ay annonce yoo xamante ni du ñu xëy bés ci réseaux sociaux yi te du ñu gis lu nu mel mu nekk nag loo xamante ni ay salon de massage la ñuy wax la ñuy jéem a taxawal ndekete yoo lu nu mel ab cagatu bu mat sëkk moo làqatu ci ginnaawam da ngay gis sax ay mag yoo xamante ni dañoo dox ba seen ndaw jeex yu jël ay xale yu ndaw am vingt ans jàpp vingt cinq ans di leen utiliser ci lu nu mel jëlal ma Devoir Liberté 6 yi jëlal ma VDN bi jëlal ma Dakar Plateau jëlal ma Sacré-Cœur Ouest Foire Nord Foire Wakam jàpp Mermoz jëm sax Médina Point E Ngor Wakam Yoff jàpp Almadi ñi ngi jooy mu nekk ay quartiers yoo xamante ni lu ñu mel daf ko fay faral di gis bu baax a baax te annonce yi tamit bari na lool ana boobu ba léegi suñu autorité yi lan la ñuy def si lu ñu mel te li nga xamante ni sax moo ci gën a garaaw mooy dañuy yàq der ñi nga xamante ni loolu mooy seen liggéey ndax kat massage métier bu noble la xoolal ma kii di a Fall moom ba ñu ko laajee naka la duggee ci métier bi moom kat mu ñuy xamal naan ñu mère de famille la divorcé am na doom boo xamante ne làq na juróom-ñaari at waaye métier bi daal nu mu ci duggee d'accord na ni amul benn diplôme dugalu ko ci xanaa rek bëgg lu mu dundalee doomam ak nu mu taxawoo ay waajuram mu nekk ay kàddu yoo xamante ni dañ koy faral sax di dégg ci agresseur bi dañ koy faral dégg ci mbër yi dañ koy faral di dégg ci képp koo xamante ni da ngay faral di def naka sudul noonu bu ñu la laajee foofu nga koy kal waaye ñun loolu intéressé wuñu lu ñu intéressé mooy ndax nu mu ci duggee légal na wala légalul ginnaaw ba nag confirmer nañ li nga xamante ni moom la ñu ko laaj d'accord na ni deful sax formation bi nga xamante ni moom la ñuy tuddee formation en fitness et esthétique ba ñu ko waxee nag ñu ne ko mais lii amoo droit def ko ndaxte tegoo ko ci yoon mu ñu xamal naan ñu vie privée la kenn amu ci lu mu ciy wax waajuram yi sax xamuñu lu muy liggéey donc moom dafay indi xaalis rek di leen jox ñu jël loolu ci la ñu xamal nañu ay waajuram ñi ngi dëkk Liberté 6 waaye nag moom moom la engagé bu ñu demee nag ba laaj ko ne ko est-ce que xam nga euh, la foofu mu xaw a daal di mer jàppewul boppam moom sagatu la moom daal nee na daf ci dugg rek ngir euh, mën a ubbi benn bu yëfu boppam loo xamante ne dina ci mën a suturlu légalement loolu nag benn exemple kase la ci lu waral waxtaan bi tey dañuy dugg nag ci biir salon yi ñu xool lu fay xew ñoo ngi ci samedi 14 décembre 2019 ci diggu njolloor naaj bi tàng jër ñu ne sarax ci benn salon de massage lu ñu fa njëkk gis gën ñoo frappé mooy daal ay xale yu ndaw ñuy dugg di génn di jaabante di wane maanaam seen bopp ceeb bu sew Siam Pakistan Caroline oncle Ben ceebu mbay lépp rek di ay xeetu catégorie pour rek ñu mën a xam yow loo bëgg col ñi nag loo ko natt rek ci mbon weesu na ko lu ñu lay njëkk proposé mooy ban genre massage nga bëgg ndax kat nay façon te xale yu ndaw ñoo lay accueillir lu ñu lay njëkk laaj ndax nga bëgg ñu masser la en ba pare nag dañ lay tegal naan ñu lépp loo bëgg tamit am na fi mu nekk ay mbir yoo xamante dafa jot nag suñu nguur yi jëm cee xool ni nga xamante ni moom la ñu war a mën a taxawee ngir saafara lu ñu mel parce que kat ñoom ñu koy def laqatuwuñu benn yoon réseaux sociaux yi article boo dugal da ngay gis sax ñoom dañuy faral di commenter ci suuf joxe seen numéro téléphone kon nag yaakaar naa ni ñooñu jàpp leen lu mën nekk la moo tax dañu ci interpellé ñii di waa brigade de mœurs wa illaa waa division spéciale de lutte contre la cybercriminalité askan wi dañoo yaakaar ci yéen ngir rek ñu war a mën a tonni mbalit bi nga xamante ni dara taxu koo jóg lu dul yàq suñu société bii salon de massage boo koy ubbi dafa am ay cahier de charge bi nga xamante ni moom la état du Sénégal teg ngir nga war ko mën a remplir gazalika noonu la hôtel yi demee noonu tamit la site yëpp xamante ni tey jii moom ngay fas yéene ubbi noonu lay demee ki nga xam ne nag danga nekk ci biir te remplirloo condition yooyu je pense que nit daan la teg la ay daan lu war la donc kon dañuy appeler euh, l' du Sénégal ñu jël seen responsabilité ci lu ñu mel ndaxte lii waxuma la sax ab mbon mi nga xamante ni mi ngi koy dugal ci réew mi waaye économiquement aussi da koy dafay rey réew parce que am na xamante ni dañoo doon liggéey dem jàngi seen xam ñëw investir ci mim réew ci fàttali tey loolu bokk na ci li nga xamante ni moom moo rey tourisme sénégalaise ndaxte tey ku ne tourisme ne hôtel hôtel yi tey dañoo dem ba nit ñi dañu ko sax mujj soppi daf ko ay appartement meublé tey boo demee si diwaan yi mel ni Mbour wala sali jeune yëpp ñu daan liggéey ci hôtel yi mujj bi ci chômage la ñu mujj ndax ku fa tabax sa kër yaa ngi xool naka nga war mën a def ngir mën kaa luwe tubaab yi ñëw loolu nag nguur gi seetaan gu métti gi nga xamante ni moom la si àndaloon loolu bokk na lu waral suñu tourisme yi di gën di nax ay nit jóge fële jànguñu lu ñu mel xamuñu lu ñu mel ngir ñëw indi bon teg ko ci métier bi bu yàggee sax dañuy faral di wax naan ñëpp a yem te kazaalika demeewul noonu yoonu état la nag mu jug wara a protéger ñi nga xamante ni euh, seen liggéey la woon ñu bari seen mbag bu ñuy xool ñu bari seen salon de massage yi ñi ngi tëj ndaxte kat bu fekkee non seulement sax ndaxte kat non seulement seen métier doxatul ndax lu ko yàq waaye tamit yéen bañ leen di dëkkuloo sax fi nga xamante ni dëkkuñu fa tey ji Sénégal bu ñuy dox ku jigéen koo gis ñu ne ko fii kat salon de massage lay liggéeyee beneen bët la ñu koy xoole mu nekk nag lu doy mën nañoo sax jàpp ni la racine du bi nga xamante fi mu nekk nii moo jàpp suñu réew mi foofu la jóge kat ci biir néeg la ñu koy defee ci biir appartement meublé yi lañ koy defee ba mbir moom la ñuy jël di ko génne nag ci biti tey nag loolu mooy yokk mbon mi nga xamante ni moom la ñuy noté fan yi ñu passé ci Sénégal ndaxte kat jàpp nañu kinésithérapie dëgg-dëgg bi nga xamante ni dafay maase teg ko ci liggéeyam teg ko ci yoon lu ci ëpp nag ay colonne vertébrale ay dos ay cheville ay genou loolu lañ ma xam si massage te yooyu kat ñoom dañu am seen tarif yoo xamante ne euh, daanaka ñëpp euh, même tarif la par séance de 45 minutes ñoom la ñuy faral di def 45 minutes yi mën na cee fay lu weesu 15000 francs leneen lu ci yokk nag dañ ko cee rax Sénégal di gën di dem kay bon di gën a bari ñaari xale yoo ci gis lu ñuy njëkk a def mooy jéem wut seen apartement dëkk fa boobaa nag ndaru ñu jàmm leneen loo xamante ni mooy source bi nga xamante ne fa lu ñuy jàngee bon bari na lool xanaa rek ñu daal di si jukki li nga xamante ni ñu bari dégg nañ ko muy lan promotion kanape mu nekk it benn miir bu doy boo xamante ni euh, daan nañ sax wax ci pièce théâtrale yi ngir nga bokk ci am na foo xamante ne fa ngay war a mën a jaar ak kii di réalisateur bi wala kenn si ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk projet boobu rawatina nga dem ci média yi tey xoolal ma tele Sénégal tey nu muy fonctionner dafa mel ni boo rafetul amoo taar doo ci dugg te nag loolu lépp nag bul xam lan moo làqatu ci ginnaaw da ngay gis koo xamante ni salaire weesuwul cent cinquante mille francs te kat mbokk yi lu muy dundee tey jii bu ñu xayma ëpp na sax ay millions ci niveau de vie am mu doy waar nag loo xamante ni lu ñu ci war a mën a jàngatee dafa bari te lu ci bari nag ñun góor ñi ñun ñoo leen ni xirtal ci mbon ndax ñun ñooy gis fu dara nekkul ñu jël ko kooku def fo dara ba nga xamante ni sax ñi muy njëkk a ku jigéen ki ay xaritam yu mu daan àndal ñoo ñu lay njëkk a parce que kat bu la yàlla dénkee ay xarit yu gore dinañ xam ni carrément yow mi li ngay liggéey ak ni ngay dunde nii changé na te attunu loo ko bu boobaa nag ñi nga xamante ne dañ lay wax dëgg ñooñu ngay njëkk a daal di wut ay àndandoo yu bon nag di tàmbale bu ñu demee sax ba laal lii di euh, milieu professionnel bi loolu tamit dañu ciy daal di wax am na ñoo xamante ne tey jii seen xam-xam dalee leer ni fu ñu toog mérité wuñu ko Sénégal mooy dëkk boo xam ne c'est rare ngay gis ñu mettre l'homme qu'il à la place qu'il benn relation moo la fay mën a dugal ñaar wala sa taar wa illaa rek nga dëkk di yàqal kii di directeur bi Sénégal mooy dëkk boo xamante ni diplôme amatu fa valeur xam-xam amatu fa valeur moom kay sa taar rek la ñuy war mën a xool te nag boo amee fulla doon bañkat doon ñafekat kenn du la faale loolu nag tamit dafa bokk ci li nga xamante ni dafay xërtal nit ñi ci kaay bon te ñu yàlla baaxal lu nekk dinañu dégg da ngay gis sax sa ami d'enfance dem ba jékki-jékki changer carrément niveau de vie di dawal otom yore appartement am di joxeel ay waajuram loolu ak loolu yow say waajura ñaan la amuloo jom amuloo fulla ndax ki nga àndal gis nga ko nu mu mel tey ak gis nga ko teraanga gu muy jox ay waajuram te boobaa xamuñu sax kii nu mu def ba am ko te ñu ci bari seen dernier écran yi ñuy toog moom mooy seen vitrine bi nga xamante ni fa la ñuy jaay seen bopp te suñu réew mi nag ñu wax ko wala ñu bañ kaa dëkk boo xamante ni l'argent n'a pas d'odeur boo bari lee kenn du laaj ci foo ko jëlee mu jot nag nguur gi teg ay mesures yoo xamante ni dina war a mën a jàppale ñi nga xamante ni dañoo garder seen ngor ba tey ñi nga xamante ni dañoo garder seen xam-xam toog ci seen i diplôme nguur gi dafa jot mu war leen mën a taxawu ana ci naka nañu teg benn numéro ver boo xamante ni waa inspection du travail la ñu koy jagleel ngir ki nga xamante ni yaa ngi dund benn injustice si ngay liggéeyee wa illaa nga fay dund harcèlement sexuel wala rek ñaawteef gu mu mën a doon boo xamante ne wutewul ak ak liggéey nga war mën a woote joxe information yëpp le reste nga bàyyi ko seen loxo parce que kat lii dafay wëy di gën a confirmer ni Sénégal moom xaalis kenn du ko liggéey waaye dañu koy lijjanti lu tax ñu naan jigéen bu ñu demee ba amatul benn valeur ci mim réew ñu war a xam ni kat l'heure est grave ndax sax bu ñuy fàttaliku tey bu ñu jëlee exemple comme ku mel ni rangu Rangou mi ngi commencé animation télé ci Sen TV ñenn sax ci ay jege jegeñaaleem ñu ngi naan ma ku amoon jom ci liggéey la loolu moo waraloon sax ci la turu Rangou boobu ndaxte daan dem Sandaga dégg naa daan Rangou ay bagage di jaayaat kooku mi ngi doon ñafe mais ba mu ñëwee ci télé lu muy njëkk def dafay changer sa niveau de vie ci loo xamante ni kenn xameewu ko woon loolu nag tey mooy ba indi yàqu tey bi ni moom la ñu noté ci société sénégalaise jamono ji lii théâtre yi sax da nga ciy dugg benn ñaar commencé changer sa style de vie commencé changer sa niveau de vie te lépp rek ci góor ñi nga ko yaakaar te góor ñi nag xanaa yaakaar naa ni dofeewuñu noonu lu ci gën a am solo daal mooy nguur gi war naa taxawu ñi nga xamante ni ñoom ñooy les masseurs war nay taxawu ñi nga xamante ni dañuy nekk ci biir entreprise di fa dund ndaka sulul noonu xëy na xam-xam gu bari moo waral lu ñu mel wa illaa ñàkk taar waaye loolu nag yàlla moo koy def ci doomu aadama lu ci mën a am daal nañu jàpp ni prostitution moom dafa bari ay façon bu la si gën a mooy prostitution déguisée bii te gën a bari ci mim réew sama xel dem ci lii di Linguère VDN ak Linguère biir kër nguur gi tamit am na ci part de responsabilité boo xamante ne kenn mënuñ ko cee setal ndaxte kat tegul benn politique social bu wóor ngir war mën a taxawu ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw tegul tamit benn politique d'emploi boo xamante ni dina xetali ndaw yi ndax kat lu ñuy wax naan may nit ki euh, jën jàngal ko nu ñuy nappee moo gën lépp loo xamante ni tegal nañ ko fi muy ay fonds yoo xamante ni dañu ne pour euh, jeunes yi la bu ñuy xoolee ay mbiru wàllum euh, clientélisme politique lay gën a nduru seeni fa te ñoom it seeni i militant la ñuy faral di financer mu nekk loo xamante ni lu doy waar la donte sax ñu ngi naan ma ay ndaw la ñuy pourtant ñooy ci réew mi la ñu dëkk dëgg la ci réew mi la ñu dëkk waaye tey lépp loo gis yamale da ciy baax waaye Sénégal mooy dëkk boo xamante ni boo xëyee dem di wuti liggéey lu ñu leen njëkk laaj ku la fi yabal xooluñu nit ki lu mu xam xooluñu nit ki lu mu mën moom daal branloo rek moo fiy dox ay biir réew mbokk yi tey loolu lañ leen jukkiloon tegal leen ko sur la table di leen ñaan ngeen wéy di gën a abonné si suñu chaîne ngir rek ay reportage yi nga xamante ni euh, ñi ngi ñëw bañ leen a raw ndaxte tey jii ci lënd bi digoon nañ leen ni lépp loo xamante ni ruusee na fële ci tribunal ba jëm ci wàllum euh, xale yooyu nga xamante ni ñoom lañ leen toppaloon seen dossier boobu ba tey lépp lu fa ruusandi dinañ si ñëw ak yéen ci gën a leeral loolu nag lu lay permettre nga mën ko dund en ak ñun bés boo abonné si suñu chaîne da ngay bés si cloche bi ngir rek vidéo bu ñëw ñu notifié la ko jërë ngeen jëf